Nous commandons les choses sont des responsables de la paire. mais nous, Inch'Allah rabbi déposé nos plainte et on a fait plainte contre X mais je sais que ne avons pas... donc quand le jeune ko def hôpital dinañu wax ñan mais le président non je parce que ku nek xam na tay ji ak contexte électoral ni mu démé ci Sénégal nga gis tay bo xolé tay le pouvoir en place amuñu ben argument bo xamanté mom lañuy proposer askan bi Djida Thiaroye Kao waxaal luñ ko parce que Djida Thiaroye ko japp na ne les responsables APR qui sont là vraiment amuñu ben utilité bo xamné amal nañ ko Macky Sall tay lepp lo xamanté ni tey pouvoir bi fi nek mi ngi nek en place ben argument la am muy violence ñukoy koy avertir di ko que ñun au niveau du PDS au niveau de Djidah Thiaroye Kaw du ñu ay ragal du ñu ay tapet te mën nañoo tontu ci bépp loo xamante ni donc jàpp nañ ne violence la mais comme tey yàlla dogal na ñun xam nañ ne réew mi am na justice ñi ngi ñaan que la plainte bi nga xam ne déposé nañ ko au niveau de commissariat Thiaroye que justice mu def liggéeyam sinon bu ko deful on des arguments mën nañoo défendre suñu bopp te ñi ngi wax Macky Sall na wax ak ay responsable ba ci mom ci tout ce qui arrive docteur Cheikh Dieng chargé des élections nationales si si ci réew mii lu ko dal lui sera témoin et ñu ngi avertir l'opinion publique bi ak l'opinion internationale que inshallah su boba lepp lu am on va faire face avec eux te duñ ci delu